يقول عبد الله وهو أحمد قديم سمته gannaaw ba mu jotee ndigal ca waajuram mu sell ba di sëriñ Ibrahima Cissé moom sëriñ Mor Cissé ngir wéy liggéeyub sëriñ Touba naka noon itam sëriñ Mor Cissé ci la daal di door ci daaray sëriñ Saliou Mbacke ji di fa liggéey baam ci lépp ngir taxawal tey lii di daara yi wéyal liggéeyub sëriñ Touba. fukki fan ak ñett ci weeru avril en 2005 ci la daal di njëkk a sanc daara ji ca ndakaaru naka noonu itam liggéey bi wéy ba ji mu jotaan ndigal taxawal daara fii ci dëkk bu sell bii di Touba Mbacke. أزيدك في المعبد شيخ أبد ثم امتثال أمره حيث ورد وترك الاقتراح مطلقا ولو بباطن عليه فيما غره فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركا وتؤمني بهكذا مكاني وتنفي خير بشر جهادي وليبارك في جميع البركات وسكنا لوجعلا البركات يا من به ساس من إبليس وكل شيء قد تبليسا xel Xelkom bi nga xam ne Serigne Touba Serigne Saliou Mbacke moo ko sentaane woon ba tax képp ku dib taalibe murit saa yoo jotee ndigal rek daal di fay dem bay fa sa waar Serigne Mor Mbaye Cissé ci la daal di jot ndigal ci sëriñam di wasilaam di Serigne Cheikh Saliou Mbacke daal di ànd ak i taalibeem ak i mbokkam ak itam képp koo xam ne itam soppeem nga ñu daal di wéyal liggéey ba fële ca tool yi xel Xelkom yi بغرمة العين تجاوز فدا عمن يلوزني عيس أبدا بغرمة الوعي إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بغرمة السار أسل كل من يسوء بشيء من النعيس من

وبالشقاوة كل الشيطان بخير ما ملكت أوطانا يسوقه معيسا من العفيف وليس ينموني بكيد أو نفيف بتعيه رجيت وافه إلى خير جهادها في سبيل الله بألف الشيطان يسير

وذبني وفؤاد عرفي برائه ردلوا مع سدا في من الضرر حيث رصدا بجرمه سوى اليمين لا بلا لما يسوغني ومن لم يعبدا بيائي يسوغ soññ itam Cheikh Babacar ñi nga xam ne nii dañoo jóge ba Daaru Saw soññit ñi nga xam ne ñooy daayira bi dëkk ak Serigne Mor soññ waa Njaareem soññ bokki bopp yi soññit nag caméraman bi nga xam ne nii fu mu taxaw taxaw na fa te dañ ne gàddu daa métti te it gàddu topp la ngir bëggal laa tal lu rafet ak li ngay wax te mu di dëgg ci yow te nga di ko jëfe loola daa baaxit kon moo noo koy sant ci ndigal li mu fi ñëwee ci barke Serigne Touba Cheikh Rafal leneen li ci des nag ginnaaw bi ñu santee borom ci la sunu wasila di sunu buntu Serigne Touba noo ngi Serigne ngi gërëm seex bii nu àndal seex nu àndal it la ma waxoon rek seex buñ ci seexlu seex buñ ci seexlu ndab lañu defoon sa maam nga sàggane ko ba bañ seexlu la dinañ la fi jéggi jàll ndax murid yi nelawatuñu léegi nag seex buñ ci seexlu wut foo taxaw ñu taxaw fa ak yow ànd fa ndax kuy dema jara àndal ku demut jër ta àndal te li am solo mooy la ma waxan bostaan laay delluwaat fii ci tool yi xel koom yi ndax kan doon waxal ca bostaan moom moo fi yónniwaat fii fi xel koom wóotuwaat way juróom wa ñu di ko liggéeyal ci lu andut ak caaxaan kon nag bu ñëwee nan takku li nu wax ñu jëf ko te bàyyi taxawaalu bi liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Rafal fii nag tool bi Serigne Touba ko di toolub Serigne Touba ku fi ñëw loo fi fas te liggéey ko te bañ koo caaxaane soo demee loola ngay jot li am solo nag maay seex bi ba pare walbatiku ñu di la seexlu ba jéggi la koo woo wuy siwu la ca sa jikko la koy dox te ñu def la ndigal lañ la digloo da nga cay aw boo nekkee ci ndigal ndigal la nga nekk ku bëgg ndigal keneen ku mel boo wootee mu wuy si la ñun ñi nag danoo dëkk ak moom am la la ma waxan bustaan ne li ñuy tere kenn séenagu ci te li ñuy digle toujours noo ko cay gis guddi ak bëccëg suba ngoon ñàkkunu fayda ba ànd ak ba bay bay ànd ak moom ci lu dul dëgg dañoo ànd ak moom ci luy dëgg mu di teelu bi di jëwriñ mat ko sëkk wóolu sëriñ bi diggal ko di jëf ñu ànd ak moom dëkk moom kër wëlbatiku la ñu ñaan la woon seex bi mu wëlbatiku defal nu ko di seex Saliou yàlla na fi yàgg tëwél ci barke seexul xaddim am na mbégte nag bi ñëwee may ñaax ñëpp kenn ku ci nekk muy tuut tànk muy gone muy mag muy ndaw duglu leen ci tool yi liggéey li nu fi andi mooy sëriñ bi liggéey leenu fi indi taxawaalu indiwul fi nan leen bokk jëf dugg ci tool yi liggéey liggéey bi taxaal jaajëf ndax nag képp koo xam ne da ngay liggéey baat bu gàtt la di jaajëf waaye ku jëfut waroo koo dégg ku fi jëfut dara dee su sant ku jëf lu ne gàñ nit jël nga sa cant laata ñu la koy wax kon góor leen ci tool yi yéen jigéen ñi mbeen njaay togg gi na mat na sulusi na sont na neex yéen ñëpp góor ñi dugg leen ci àll bi wëlbatiku liggéey toog leen ban lippi ko ba ngar ko ba xaar ndigal ba ñu yiwinu ci barkeb Serigne Cheikh Saliou lu nu bëgg dinañ ko am asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

ومدني بألف المغلوبة يا واعدا ليلا للقلوب وليها بنور نورا يسوى ومن تنامر لا يقطع وليها بألف الرحيم إكرام سلم بوسي تقييمي ndax sëriñ bi daana wax ne day maanaam ci boppam ñenam ngont rek maanaam ci boppam yëmut ak lenn ci àdduna looloo tax nag maanaam ñu ñëw ngir maanaam ci liggéey sëriñ bi wax dëgg yàlla nag am nañ ci pas-pas lool ndax alxuraan nee na yaa ayyuhal lazina aamanu stajiibu lillaahi wa rasul isaa daakum dañoo woote ñu wuy si loolu moo ñu war liñ ciy digg nag mooy maanaam ci bopp li sëriñ bi diggee yàlla nañu ko yàlla defal ci barki borom Tuubaa sant nañ ci yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam munta ñàkk nag njiit ndax wax dëgg yàlla sëriñ bi ñu àndal sëriñ bi gërëm na ko gërëm lu sell loo xam ne maanaam ci boppam wax dëgg yàlla moo tax tey jii mu am lii ndax daan na ko wax ne sax maanaam ci boppam sama doom nga doo sama taalibe muy sëriñ Mor Cissé loolu nag moo waral maanaam loolu nag moo waral ñu ànd ak moom ñëw ci tool yi ngir liggéeyal sëriñ bi di ci dàq timit maanaam ci ngërëmul sëriñ bi yàlla nañ ko ci jot ci barke borom Tuubaa ci képp ku fi ñëw maanaam ci bopp nga dellu ci jàmm ci barke Ahmadul Xadim sëriñ bi rek laal lañ gis ndax walikuli xawmin haadin njiit mënta ñàkk waaye mooy seen njiit te wax dëgg yàlla am nañ ci njiit li tamit wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko lool ñëpp ñu fi ñëw nag maanaam ci ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di xam ne ñun lañ ñëwal ndax wax dëgg yàlla mbokki taalibe lañ ñun lañ ñëwal loolu moom lañ ci amoon la ñuy yëkkati rek di jéggulu nag ci xam ne kaddu gi wax dëgg yàlla mënuñu wuñ ko waaye nag dañoo suñu xol daal sedd bu daal moo tax ñu yëkkati ko ngir jëmi sëriñ Tuubaa asubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi wa salama tasliman mbokki jullit mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu bu baax seen tur seen sant di rafet lu teewaay bi bu baax di rafetlu liggéey bi nga xam ne moom lañ fas yéene tàmbalee fas yéene ko tàmbalee si bisimilahi rahmaani rahim jeexalee ko ci alhamdulilahi rabil alamin ginnaaw loolu nag ñu ngi ñëw fii nga xam ne mooy xelkom ci liggéey boo xam ne Serigne Cheikh Salih moo ñu ko sant muy liggéey ci xelkom bi ñu ànd si nag suñu jëwrin muy Serigne moor Cissé surtout si turam la ñuy waxee ndax mooy suñu jëwrin mooy suñu lépp. ginnaaw loolu it mbooloo mi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw jógee fi nga xam ne mooy caaween ak ñi nga xam ne ñoo jógee daaru saw ak ñi nga xam ne ñoo jógee ñaari pono kenn ku ne ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di xam ne ne li ñu fi andi mooy liggéeyal Serigne Touba moom mooy mooy li nga xam ne moo ñu fi andi ndax sëriñ bi na ne teraanga àdduna li koy maye mooy nangoo liggéey nee na àjjana li koy maye mooy nangoo jaamu yàlla kon lu dafa am wàll. wàllu baas yi nañ ca ne ñu féetee ci wàllu ndox mi nañ ca ne ñu féetee ci leneen ak leneen nañ ca ne am na si ñoo xam ne li ñu féetee mooy di di jël ndox di yóbbu si tool di jox ñi nga xam ne jaami yàlla yi nga xam ne ñu ngi sant yàlla sant yonent bi sant Serigne Touba di sant Cheikh sa Cheikh Saliou mi nga xam ne moo ñu jox ndigal yi jox ko suñu jëwriñ ji muy Serigne Mor Cissé ñu di ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudd ak wér te ñu yàgg ko ànd njaboot gi yàgg ci ginnaaw ak njaboot gi topp suñu ginnaaw ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ma leen di soññ nag ki liggéey bi bu leen ci kii dara luñ ci war a def rek ñun ñëpp nañ ca bokk nekk ñun ñëpp nañ àndandoo boole suñu xol yi boole ànd liggéey bi muy benn waaw ñun ci yàlla ak sëñ Touba Mbacke dimbali. di sant yàlla julli ci Seydina Mouhamed sangub sang yi sant sama ñaari waajur sant sëriñ Touba ak Serap Fall ak sëriñ Saliou man may yoon wi nu ñëw nag pour yéenee liggéeyal yàlla liggéeyal suñu bopp njàqar ji fu doomu aadama indi yàlla na ko yàlla teggi ak ñàkk ak feebar tàppe suñuy xol ban mën a liggéeyal sëriñ Touba ci ni ko soobe tan fekke lépp te tal ku fi indi feebar yàlla na ko yàlla tàqaleeg yow nan boole xol yi noo bokk teen bu ñu roote bokk lu ñu bëgg nanu yëkkatindoo di tegandoo di sant nag ñu àndal ñëpp comme noo ngi fas liggéey rek saal yu Mbacke moo nu tax a jóg rek ñaqar ko rek moo nu tax a jóg barke sëñ Fallou yàlla defal na xéewal ak mucc buñ koy liggéeyal si rek at mu jot rek barke sëñ Touba moo nu tax a jóg waaw. maa ngi sant suñ mbokk sant suñ soññ suñ mbokki jullit yi ñu fas yéene takku liggéeyal Serigne Touba di ñëw xel comme waxtu wu ne di ñaan yàlla suñ doom yi dund ba di ci ñëw képp ku fi indi jaaxle yal na ko yàlla faj yal na yàlla faj lépp tàmpe suñu xol yi bañ liggéey sëriñ Touba ñun ñëpp bokk-bokk tàbbi àjjana ci barke sëñ Saliou yal na yàlla yokk leeral ñaanal Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke xalifatul mu yàgg fi loolu ti ànd ak wér di ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér di ñaak sàkku mbooloo mi yéen ñëpp ngeen maas wax Serigne Mor Cissé mu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te ànd ak ñoo ngi siyaare mbokki taalibe yi mbokki jullit yi fépp fu ñu mën a jógee góor jigéen mag ndaw di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan suñu borom boole ñu jéggal ñoo ñaan ci barkeb Serigne Saliou képp ku fi teew ren yàlla na fi teew déwén képp ku fi teew sa yéene ci Serigne Saliou yàlla na si am lu koy njort ñoo ngi siyaare suñu kilifa suñu yi ñu àndal suñ Baye Mass Baye Assane Niang ak suñu waajur yi ñu fekk si jotaay bi soxna yaay seen soxna Nday Mbeng ak mbokki taalibe yëpp jëwrin yooyu ñu ngi lay siyaar bu baax di la ñaanal ndigal la ndigal bu jógee li nga xam ne moo war mooy jóg takku ànd ngir jëmmi Serigne Saliou ndigal loolu yàlla nañ si dajee ngërëmal Serigne Saliou lépp luñ ci yéene yàlla nañ ci am ndam kon sëñ Mor def na li ko war kon ñun ñi nga xam ne ñun la àndal nañ fas yéenee maase ànd bokk nday bokk baay daayiratu soppee Serigne Salihu Touba Daaru Salaam Sow daayiratu Touba Xelkom soxna Mbène Ndiaye mi ak Baye Assane daayiratu ñaari punu ñoo ngi siyaari seen jawri ñu baax waa Ndiarème bawuñ kenn kon tey ñu ngi ñaan liggéey bi ni ko sëñ Moor àndee ak ñun wóoluñu si nañu ànd bennoo bokk nday bokk baay fas yéenee siggil sëñ Moor waaye fas yéenee siggil suñ bopp mooy ñu def ko ni mu ko bëggee mu ñaanal ñu ñu fekkiwaat ko déwén ñëw àndaat ka moom barki Serigne Saliou di ñaanal Serigne Mor Cissé mu yàgg fi loolu te ànd ak ndigal la nag ndigal moom bu jógee mu rek amul lu dox ca rek ñoo ngi sàkk mbooloo mi lépp ñu def comme yéene ji rek ñun fi ñëwee liggéey ko ci bar ci barkeb Serigne Cheikh Sall maanaam comme comme ni ko ni ñu fi indi rek nan nan ci takkutu daal liggéey ko bokk na def la وسلما يا خير على معزم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من هما كل عن الأرجال بسم الله الرحمن الرحيم ñoo ngi fas yéene jublu ci liggéeyal sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra ci barkeb Cheikh Saliou Mbacke borom bis bi di ci ñaan nag sans borom may nu ñu teewee ko ay déwéni déwéni déwén mbooloo mii yàlla bu ci kenn manqué yàlla bu ci kenn manqué yàlla bu ci kenn manqué yàlla nu sans borom jàppal sunu jàppanteeg bopp giinu jàppante ngir Seex Saaliwu yàlla nañu ko sunu borom téyel ba mu dëgër lool ba lépp lu ñu ci yéene rek nu am ko ci li ma ciy fasit mooy lépp lu fi waay indi ci jàngoro ak tawat ak ràgg yaram yal na ko Cheikh Saliou Mbacké teg barki sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima man na ko ndax léegi Cheikh Abdoulaat da ne yaa soxla des koy ñaan waaye jàngoro des koy faji kon dañoo ñëw ci bisum ñaan bi yal nañu Cheikh Saliou defal lu koy sunu njor ci bis bi lépp lu nu fi sàkku yal nañu ko sunu borom defal barki Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Cheikh Mor Cissé mii nu jiite nag yal na yàgg ci sunu kanam. li maas di wax ne ba nu yàlla boole ak moom ba léegi dañu ko mës a ci lenn lu ñuy tere te saa yu ñu xëyee gis ko ci lu ñuy digle loolu rek a tax nu ànd ko moom kenn ku ci ne am nga wasila ku ci ne joxe nga sa loxo fi bërëb waaye ku sëb sëriñ fekkan fii tey nga ne sëñ Mor mii la àndal ci liggéeyam sëñ Saliou bii du la yedd mukk ndax mat na ko mate na ko fu fullaam mate na ko ngoram mate na ko ab bëggam sëñ Saliou mate na ko kon yal na yàgg fi kanam te nu yàgg a topp ci ginnaawam lépp lu nu fi wut ci lu baax yal nañ sunu borom defal lu koy sunu njort barkeb sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra sunu jigéen ñi nu àndal nag yal na saa borom yokku leen am nañu pas-pas lool daayira bii ginnaaw yàlla ak yonent bi jëmmi sëñ Tuubaa bu yëg see fii ñooma kon yal na leen saa borom yokk am nañu ci pas-pas am nañ ci yéene am nañ ci jom jërë ngeen jëf sëñ Cissé. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen ziyaare dafa mel ne ni ko sëñ Mass waxee rek soññee na mbooloo mi yëpp parce que bis bii tey bisu ñëw bi la soññee wax li ñu war a def kon sëñ maas wax na ko ñu bàyyi xel nag ne war nañoo am beneen bis buy ñëwaat mooy bis bi biñ dajawaatee ñu war ñoo yeewi ndax li ñu waxante woon fii ak li ñu soññee woon fii def nañ ko wala defuñ ko kon daal ñu ngi wax mbooloo ne kenn ku liggéey bi mënu fi indi nañ ci jublu ñi ngi leen di xamal ne it lii ñu jóge Touba waaye daayira njaare mi ñi ngi ñëw dañoo xaw a yeex a agsi moo tax ñu jiit leen fi waaye ñoom bu soobee yàlla danañ agsi ànd ak ñun liggéey bi ñëpp ak jëwriñ yi ak ñoom ñëpp ñu am pas-pas ci liggéey bi ñu fas ko yéenee def comme niñ ko defoon ndax xel koom moom xellim koom la moom ku fi ñëw rek yëg sa bopp ku fi ñëw ak ki fi ñëwul boo leen gisee déwén da leen xàmme ñi fi ñëwoon daaw it ñu rajo fi ren kenn ku ne gis nga loo yokk kenn ku ne sa ngay defal kuy tibb di def sa poos nag yaakaar naa waroo xaar ku leen di dolli jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nag ba ca bisub yeewee ba ñu fas yéene am ci ngërëmal sëriñ bi rek ak ki suñu jëwriñ ji nga xam ne moom lañ ko àndal muy suñu buntu nag ci sëñ saaliwu ndax sëñ saaliwu moom day sëñ saaliwu ñëpp day sëñ saaliwu ñëpp nga xam ne nag mooy sa buntu ci moom kooku moom amalatoo ko benn loo ko mën a defal lu sant ko gërëm ko yàlla yàgg fi yàggal ko fi si sunu kanam ñu yàgg topp ci ginnaawam ànd ak moom sàkku ngërëmal sëriñ bi. Eh, dañu leen di gërëm bu baax mbokki taalibe yi waaye itam sëriñ moor dañ lay sant bu baax di la ñaax itam te nan la doomi daara de daanaka lii lañ ko séntu. di la sant ci ndigal li nga xam ne yaa ngi koy ànd ak say taalibe waaye itam ànd kooku say raq di sëriñ Mbaye Cissé naka noonu itam sëriñ Abdou Lahad Cissé ak képp koo xam ne sa soppe la ci liggéeyal sëriñ Touba bi ngay wéyal jëf bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi teew di bokki taalibe noo ngi di leen siyaara ci jataay bu tedd bi nga xam ne daje nañ ko fi bis ne ka tey te yàlla dowal at yi jot at yi wees yëpp ñu daa ko ànd ak yéen tey jii ñu bokk commencé àndandoo ñëw fii ci tooli sëriñ bi ci ndigal loo xam ne mi ngi bàyyi ko ci sëriñ Seex moom sëriñ Saaliu Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér liggéey bi nga xam ne da ko nisira liggéeyal maamam liggéeyal ko baayam ak liggéeyu boppam ñoo ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla mottali naal yi sëriñ Saliou naaloon yëpp mu yeggale ko ba naal naali boppam ba yeggale ko ba naal naali taalibe yi ba yeggale ko yàlla suñu borom bàyyi ko fi saaxir baatin mu amee ko lu kawe njortam ñoo ngi koy ñaan sëriñ Cheikh yàlla na ko yàlla defal di ñaanal it ki nga xam ne mooy jëwriñ ji di sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad yàlla bàyyi ko fi mu yàgg a topp ci gannaaw sëriñ Seex euh, mu yàgg a topp ci gannaawam liggéey yi nga xam ne moo ko ànd ak moom ñu ànd kook moom euh, mu yàgg koo taxawe te yàgg koo ànd ak moom di ko sant bu baax ci taxawaayam taxaw gi nga xam ne taxaw na ko ci kër gi taxaw gi nga xam ne mi ngi koy taxawu sëriñ Seex taxaw gi nga xam ne mi ngi koy taxawu njaboot gi yàlla na yàgg lool ci barkeb sëriñ Saalihu Mbàkke ndax kat jëmm la joo xam ne ko mat a sant la muy sëriñ Saalihu moomu ndax li sëriñ sëriñ Seex doon ci sëriñ Tuubaa rek moom la doon ci moom loolu yëpp nag jël na ko jaay ko jënde ko ak taalibe ku xam sëriñ sëriñ Saalihu njàmbaar gam yoroon ca daara ja da koo feddali waaye dara wàññi ko ci kon yàlla na ànd bi yàgg te sax ci barkeb sëriñ Saalihu Mbàkke gannaaw loolu itam yéen ñi nga xam ne yéen dama Serigne Saliou booleel jataay jii ñetti kuréel la kuréel bu njëkk yi mooy sama bokki bopp kuréelum ñaareel bi mooy bokki taalibe yi nga xam ne Serigne Touba dañoo boole ñu doon seen wasila ñu bokk ci biir kër gi ak kuréel bi nga xamee ne ay soppee Serigne Saliou lañ yoo xam ne dañoo ànd ak man ngir ci liggéeyam Serigne Saliou bi kuréel bu ci nekk noo ngi yëkkati kàddu cant di ko teg ci loxo jëwriñ ji nga àndal ak fu mën a bàyyi ko di yëkkati it kàddu soññee di ko teg ci jëwriñ ji nga àndal cant gi nag lu kàddu yu bari bari cant moom cant rek lay mën a doon jataay bi ñaar rek ko ko waral muy kàddu cant ak kàddu soññee lu wax ji bari bari bari génnul ñaar yooyu yi ab soññee ak ak cant eh, soññee gi nag moom daanaka moom ci gën a yitteel ndax cant gi baax na lool waaye soññee bi moom ci gën a yitteel ndax kat suñ borom day wax naan eh, Sëriñ Tuubaa dafa am fu mu bind di wax naan wax bi xawaa ijil lazina daamu fii xidmati wa hab lahum maaraamoo kon loolu day mel ne bépp taalibe boo xam ne ñëw nga fii sa xer naa dal bu baax a baax loolu mooy ñaanal ñi nga xam ne dañ koy liggéeyal euh, seen liggéey boobee euh, suñ boroom nangu ko boole koo gi defal leen ay xéewal yu sax dàkk kon ku fi ñëw ko ne dañ laa war a soññ waaye wëri su laa sant ci ko mën a wax waaye nag war nañoo sant nag ndax suñ borom moo ne la in sakartum la azidannakum bu ngeen ma santee ma dolli leen kon noonu sant moo nu war ngir ndolleen waaye sant it moo nu war ngir ak jaamu yàlla eh, liggéey bi nag moom defe ngeen ko nu kawee njort liggéey ngeen ko ni ko sëriñ bi bëggee woon ba mat sëkk sotti na colet ngóob nañ ko ngóob mu sell na def ngeen ko ay jaag sëriñ bi joxe na ndigal nag ñu maase yi ko delluwaat toog ci kër yi déglu ndigal saa yu ndigal jógee nag ñun ñoo nga ca kanam ku ñëwit ñu ànd ak yow comme nii ñu ko ànde woon ak yéen foofu rek lañu ñu toll kon sëriñ bi nee na sant mbooleem mi yëpp ñu ngi ñaanal mbooleem mi yëpp lépp loo xam ne li ab taalibe bi andi na ko fi ci tawat moo xam tawati yaram la moo xam tawati aajo la ak nu mën a toll sëriñ bi attan na ko te mën na ko yàlla nañu ko defal ca euh, loolu sax rafet nañ ci njort bu baax ne loolu am na ba noppi ndax sëriñ Saaliw di yàlla na yàlla yokk ay leeram bari waa na waxtaan yi mu daan waxtaan ak day mel na tey jii moo ko tax a jóg ba tax na lu baree bari bu ñu ko gisee rek dañuy jàngat ca lañ doon dundee moom ak lam doon waxtaan ak ñun tax ba muy taxaw naan su ma wóoroon ne taalib yi yëpp ñëw nañ xel ko ma bàyyi ko woote waaw ah, xoolal tey jii kon xam nañ ne xel koom lépp aw yiw la sëriñ bi defu ko ngir dajale alal defu ko ngir dajale ay bien taalibe li koy jariñ mooy day ñaq ñaq ak ñuqi moo di taalibe sëriñ bi lool la xam moo tax mu teg ñu ci yoon yi ca loolu yi da koo doon ca booy juróom boobu muy sëriñ Tuubaa loola nag mënee su koo am ndare ba lu mel nii rek moo ko moo moo moo ko mën a dundal loola moo waral sëriñ bi taxawal tool yii fas fi yéene jaam yàlla fas fi yéene liggéeyal liggéeyal sëriñ Touba ci jaamam yi su soxla woon ay milliards su toogee taxaw laaj ko balaa mat diir bu gàtt mbooloo mi yit ko la mu soxla waaye nag dafa am lu mu soxla loo xam ne nii lii moo koy mën a maye te loola mooy lam aw ñaq wolof day wax ne ñaq réerul borom ku ñaq da nga jariñ ñaq woowee nag moom lañuy sëriñ bi de fàggul ci tool yi képp ku fi ñëw rek da nga fi yóbbaale aw ñaq ñaq woowu nag ci la ñuy defare suñu saahir defare ci suñu baatin kon képp ku fi ñëw rek war ngaa sant yàlla bu baax a baax daana wax bëgg fee ñëw toxu fee ñëw ku fi ñëw rek dañ laa dañ laa dimbali kon képp ku fi taxaw rek baye ba nga xam ne kon ndimbal moo la fi andi kon bu kenn gis sa bopp ci ñëw gi fi ñëw li ngay gisee sa bopp mooy feddliwaatal sag laxasaay ba bu déwénee ak jàmm bu la fi fekkee te yàlla na lañ yàlla yàlla yàlla na am képp ku mën a doon rek boo jógee fii tey na nga tàmbaliwaat sag loxo say tey ba bu déwee ne nga ñëw fi ñëwin wu raw li nga fi ñëwee woon ca xam ne lépp yàllaa ko yor te da koy maye ca ci loxol Serigne Touba la ko teg sëriñ Touba nag képp ku ko fi nekkal rek loola mu ngi ci yow kon sëriñ Cheikh mii day kenn ci ñooñu ndax la sëriñ Touba doon wax naan li muy ñaan suñ borom naan ko dama bëgg nga defal ma sët yoo xam ne yi dañuy sax ci di ma liggéey di liggéey suriyatan tayyibatan tu tujaddidu suriyatan tayyibatan tajtahidu uh, alhamala saalih ya qadim damay damay damay fàtte bayit woo na ko sëñ waxee waaye la may jubloo misaal mooy bayit woowu moom la sëriñ bi def ci sëriñ Seex ku ne xam na ne sët la boo xam ne bii li sëriñ bi bëgg lépp mu ngi ci mosu cee dellu gannaaw yaa ngi koy dégg ci jàkka yi yaa ngi koy dégg ci jumaa yi yaa ngi koy dégg ci daara yi yaa ngi koy dégg ci tool yi tëllut toog Touba tëllut a toog ci toog fa nen lépp lu mu lu mën a am rek moom ca daara ja daara ja rek mooy li ko yitteel ca loolu rek la Serigne Touba bëggoon te dëkk bi bi mu koy sañcit loolu la waxoon maanaam sëntewu ko lenn lu may jaamu yàlla sëntewu ko lenn lu may dundal alquran sëntewu ko lu may lenn lu may dundal diine diinal islam kon bépp sët boo xam ne bii dox nga doxin wow yi ñëpp war nañoo maase di la ñaanal te fas yéene topp sa gannaaw tey déglu say ndigal kenn ci ñoom nag mooy sëriñ si yoo xam ne liggéey woote liggéey kon ñëpp mën nañu war nañoo ñu maase di ko ñaanal fu nu toll mu yàgg ndax lu mu fi gën a yàgg rek liggéey sëriñ bi diggante feeñ kon loolu kuy kuy kuy dundal doonu loonu doo kuy dundale noonu yoonu mu rek ñëpp la ko defal yemale wu ko ci njabootu sëriñ Saliou rek kon bëgg naa ñëpp bàyyi xel loolu sant bu baax sëriñ bi yàlla na ko fi yàlla yàggal te ànd ak wér di soññi nag mbooleem ñi nga xamee ne ñoo ànd ak man it ñëw ci liggéey bii na ma ko waxee woon rek fas fasaat leen gis ne ko tey fas leen ne sëriñ bi taw ji fi waaye andi faj na ko waaye nag damaa bëgg fas goog yi ngeen fas ci ne déwén ak jàmm nii dal bi mel sedd xol lool liggéey bi mel ko sedd xol lool bu déwénee na ko raw lool kenn ku ne na ko fas ci sa xol parce que yéen yóbbaale nañ tàmbali waaj tey tey tey tey ngir jëmee déwén wala sax duñu wax déwén waaye fu ndigal jógee rek ñu bàyyi ko xel noonu ndax loolu mooy li ñu mooy suñ njëriñul tey di suñ njëriñul ëllëg ndax koo xam ne kii lépp looy liggéey lu ne eh, da nga koy da koy da nga koy am waaye ñu di la ko dencal bu ëllëgee suñ la ko wanee la cay lu baax sa xol la cay sedd lool la ca safaan it sa xol ba sa xol da ci naqari lool ñu nag dañoo ñaan yàlla lu ñu woon ëllëg mu lépp doon lu baax kon nag lii daa bokk ci li koy maye na ñëpp maase xam ne liggéey bii lu ñuy dencal bu ëllëgee la ca bu ëllëgee dañ cay dañu ko delloo ca sëriñ Saliou ko daan nañu wax ni ki ngeen di ki ngeen di jëfal day ki ngeen di lebal ñemewut bor daa amuk pay ki ngeen di jëfal ñemewut bor daa amuk pay loolu nag wax la joo xam ne ji ku ko dégg ku war ngaa xam ne loo def rek war nga koo war nga koo xeeb ca euh, sëriñ Tuubaa mi ngi bind naan wa arxabul asyaa lil amwaati radda ila dunya mal ayaati walaw suwayhatan faqat li yahlamu saalihatan tan fahum yanqafaloo ña nga xam ne ña nga tëdd seen biir bàmmeel de lay seen xel nante du dara lu muy del siwaat jamono dont seen saala yi ñu am ko fi ngir mën koo liggéeyal liggéey liggéey ko fi luñ mën a tëdda tëdde foofee di ko jaamoo yàlla di ko tedd tedd foofee kon loolu buñ koy wax ñun ñi nga xam ne ñoo fi desal yi ñun ñoo tax loolu ab soññee ci ñun ñëpp kon ku ci nekk war ngaa xoolaat sa bopp bu baax teg xool fi ngay teg sa tànk bu baax ci xam ne riir mi bari na coow li bari na waaye li ci jëm ci yàlla lu néew néew la yoon wii nag képp ku ci sóobu na nga xam ne yow jëm ci yoonu yàlla jëm ci yoonu Serigne Touba ci yoonu Serigne Touba àjjana rek la lay jëm kon ndigal murit ndigal rek la am fu ndigal jógee nag jóg ak ku mën a doon. lu baax lu ndax sëñ Mor Siré kat daana wax naan euh, mbër day fëkkatu mbër day fëkkatu mbër du yem ci njëral bàyyam loola mooy du du doo wax ne rek di sama sëriñ at yi ju ma am naa ko jox sama sëriñ wala su ma demee naa nuyoo sama sëriñ nangam déedéet fu lu baax nekk na nga ko jéem a dugal sa loxo ndax nga mën faa jëriñu ndax yu baax yu bari na lool loola da koy def ba noppi boole ko faneen foo xam lu baax foo yaakaar lu baax nga dem fa jéem ci am ca am baax kon xel koom gii yàlla nañ ko teewee na gën a déwén sëriñ bi nangul ñu suñu liggéey làqal ñu ko fa yàq agut boole ñu ñi nga xamee ne ñooy saabiqoon la wala woon ulayka ulayka ulayka ulayka min al muhajirin yàlla nañu yàlla boole ci ñoo ne ci barke sëriñ Saliou Mbacké kon euh, bu ko defee maa ngi yamali foofu ba beneen yoon ñaan yàlla suñu borom nangul ñu taalibe yi làqal ñu ko fi yàq agut musal ñu ci lépp luy musiba jotal lañu ci mboolem lu di njariñ àdduna ak àllaaxira yàlla ñu ko yàlla defal ci barkeb Sëriñ Saalihu Mbakke wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asu seytaani yàlla na nu yàlla féewaleeg seytaani su fi jigéen baa mu di góor tey tux poon baa nga fi naan di màndi baa ngay wax lu bon bu ëllëgee yow da nga wéet yàlla te boo rek ngay mën a xam ku yàlla naa fekk daal daa bëri tey ci jamono lu tax dañoo nekk ci mujjug jamono nga gis fi góor gu ne wéedeeg tey xeesal di sansi mbindum yàlla yow di beesal defee ne nag yaa gën a for ci nit ñi te gën a bon xajaki mbaam ci dun foo nekk daal defee ni yaa fa féete kaw ñu xeb mbindeef yépp tanaa bu leen fi aw ku nekk tey ci àdduna te fàtte dee te fex lamaasa laq ya ñëppay dee rabakasab bëgg misik tey digluwaay te bëgg mbër bëgg séer doo mën a wéy yaroo ko neex ku yoruwul doo yor dara doo mën a baax doo mën a jub doo xam dara réew répp rëy te soof te ñàkk ful la te mën a sàcc buñ la jàppee xas la boo moytuwul ñu dóor la sax bagaañ la te kat du mujj fenn yaa mooy yàlla baax mooy li am solo ku baaxul bokkoo yal na nu baax te jub ba mën a bokkoo te bañ a xeex bañ a xoloo tey defu yiw te xam lu baax dëddu lu bon ban dinu naw nan bàyyi jëw te bàyyi tooñ te xam ji ni loolu rek moo mën a tax du rëccu ji yal na nu am tànki kanam yi jëm sa kaw te bañ a am tànk gannaaw ban di noraw kon nag danoo bëgg ndigal nan war ndigal te bañ a am loo xam ne day indi mbugal amina amina bi xaadim yàlla na nu am ngërëm mu seexunaa xaadim ku di murit ba ab jullit jaajëfati ku di majuus ba ab nasaraan bu ñu xamati man seexu moo di jaane maa ko doon way ngir bëgg nun ñëpp man see jaar ba wey amina amina nee leen amina Cheikh Bamba mi moo mata ñaan ihsaana man dëdd duy ndabite duy xol yi mu fees bu ëllëgee nu mën a am sundaayu fees yàlla naa si làq ngërëmul yeneen ba ak ngërëmal Seex Bàmba ak baayam ba amina amina ku wax amina yàlla na nga dem màkkata ak Madina